ci ànd ak kii di Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm ca université Assane Seck njàng ma taxaw gum na fa Walf Quotidien bu nguur gi jëlee dogal tëjandi lii di université bu Ziguinchor teg ca tas amical ya fa ne Walf Quotidien ñu fàttali ne googule université Assane Seck fan yi ñu weesu jot na fa dund lu méttee métti Walf Quotidien bi la doxalin doon lu métti lool étudiant ya fa ne bu ñu sukkandikoo ci Xaadim Diène mayor seen kàddu ne ñaawlu nañu décision bi nguur gi jël ngir tëj seen université daal di fàttali ne étudiants yi dañoo am sañ-sañ te kenn waru koo salfaañe te xel ko wéyal xaadim jén xamle ne daañu kalaami mbir yi fu mbaxana doone benn ndax dogal bi nguur gi jël moo déppoowul ak yoon ci biir yéen a kaabit Walf Quotidien njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye sàkku na ci gouvernement bi rawatina ci premier ministre ñu gaaw a jóg saafara jafe-jafe yi université bu Assane Seck yéen a kaabit ay pexe yu moom la kilifa jël jëm ci dakkalagum njàng ma ak njàngale ma ca googule université Assane Seck ba ne ca Ziguinchor a kaabit googule université jël na dogal tëj rap campus académique ga ba jëmi jamono docteur Balde mi jiite kurus bu Ziguinchor xamle na nguur gi lu ci jublu mooy fexe ba sàmm kaaraange ñëpp keneen ku ci àddu di Amadou Sow bokk ci étudiant ya fay jànge xamle la xew ca googule université waruñu ko noppee jóg nañu ngir ñaxtu Amadou Sow xamle nguur gi dafa bëgg saxal seen ak yelleef Xaadim Jeen mayor kàdduk étudiant ya xamle ne ci way politique yi dañoo bëgg a soofantal étudiant yi a jafe-jafe waaye bëgguñu ku ko yok yéenekaay bi di 24 heures ne dal am ci njàng meek njàngale mi rawatina njàngale mu kawe mi dondu soxal dondu yiteel lool njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye waxtaane na ko démb ci dajeb conseil des ministres dal dina sàkku ci gouvernement bi ñu teel cee jël matuwaay waaye itamit njiitu réew mi dooleel na docteur Abdourahmane Diouf ne mu ne na taataan na gestu jafe-jafe yi tënk université yi lam ca teg moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay xam le ne bépp chantier gi ne woon ci université na nañu fexe ba liggéey ba mun a sotti mun a yemb yéenekaay bi di Le Quotidien ne am ca université Assane Seck tey njiitu mi Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko premier ministre doon nañu sapeur ngir mun a lijjanti mbir yi daldi woo syndicat yi boot jàngalekat yi ak ñeneen ak ñeneen ci waxtaan yéenekaay bi di tribunal ci grève ñaxtu yi am ci njàngale mu kawe tax na Ousmane Sonko jëfee na ni njiitu ma woon Macky doon jëfee maanaam tëj ràpp université yi tey bi la yoon jël na dogal tëj université Assane Seck ba ca Ziguinchor amical amatu fa nguur gi tas na leen tax a njàngale mu kaw mi rawatina la xew ca université Assane Seck doon jafe-jafe gu jàmp te nguur gi war cee jublu ngir indi ci saafara te moytu bañ a defanteeg étudiant ya leneen lu fës leeral askan wi mi ñaawlu tegum Samuel Sarr mi amaat démb retour de parquet te palaasam du kaso te Samuel Sarr yiteem yépp mooy jëfee ay ndenkaani Serigne Saliou mu soxal ay toolu lageen te liggéey ba war a tàmbale fanweeri fan ceeru novembre gi ñu ne te at mu jot Samuel Sarr di ci béy waar yaatu ay kàddoom ci critique politique Omar Faye daal di wone meram ci li xew ci projet West African Energy mi Samuel Sarr jiite moom jiital leeral askan wi daal di leeral ne naka la ñu téye Samuel Sarr wekku ko ci ab plainte gu jógee ci ab simple actionnaire tey kookee bu bëggee foqar ci kilifteefu Samuel Sarr ci bopp bile central tax Omar Faye gis ne bile doxalin doonul lu baax ci privé national bi ak étranger ñu dem ci yéen a di source mi ñu xamal ne tey Samuel Sarr fippu na lañ koy tuumal ma ngi koy weddi gannaaw retour de parquet gamu amaat démb défense bi jàpp ne mun yéenekaay bi moom Samuel Sarr jot a yeggee ay jege ñaaleem ne des kaso moo ko gënal yenn yi leneen lu yéenekaay bi di source a fësal di mbirum Jérôme Bandiaki te ñu tudd ca rak duduka di sakorika ma ñu ne moo doon jox ngànnaay kii di Jérôme Bandiaki yéenekaay bi di l'évidence xëy duñu xamleek Amadou Sall di doom ci njiitu réew ma di Macky Sall yéenekaay bi gis ne Amadou Sall mi le enquête mun nañ ko ubbi jëmee ko ci moom gannaaw na doon doxalee ak na doon jëfee ca nguurub yi jàpp Dubaay tax yéenekaay bi di Sall mile la mu def ci naka sudul noonu ci alalu réew mi Karim Wade sax defu ko waaye Farba Ngom la def ci wàllu suuf moom la yéen a kaabidi yor gi xëyee di ñu xibaar ne lu toll ci 573 264 moom la jox Farba Ngom ak Ismaïla Ngom ca Daga Xolba ak Mbambilor ci benn bëccëgu juróom-benn fan ci weeru octobre 2023 bi ne ba ca tegu bokk na ci jox nañ ko lu toll ci 16 322 ñu jox ko SPC Xaba ca zone bu Bewa Almadi boo ko ci koppar fàttaliku ay fan Sénégal fas yéene fàttaliku juróom-ñetteelu fukkeelu at gannaaw caaroy 44 njiitu réew mi Bassirou Diomaye doon ci séentu kii Emmanuel Macron njiitu France waaye du mujjee ñëw defee yeble yéen a caabi Sud Quotidien wutali assemblée nationale ne tey ñépp a ngi déglu njiitu réew mi Bassirou ngir mu jël dogal ana ban bés la ñu taxawal bi le législature gannaaw bi conseil constitutionnel déggalee juree dafay xamle ne ci lu yàggatul dina jël décret jëmale ko ci pencum ndaw réew mi yéenekaay bi di la mandaane ci jamono joo xamante kenn xamagul anakan mooy jiite bi quinzième législature am ñu jàpp ne gannaaw Pastef am na majorité na Ousmane Sonko jógee ca primature ga ne dem jiite ji assemblée nationale ay kàddoom ci le mandat chroniqueur bi di Alioune Sow doon directeur de publication le mandat giseewu ni xamle na tey liggéen premier ministre Ousmane Sonko a boppu assemblée nationale. waa Sénégal di nuyu waa diaspora Serigne Cheikh Sarr le marabout voyant moom laay woowee the king of the ki yàlla may xam-xam ci wàllum faj nee naa la foo teg sa loxo mi xasan bu fa bàyyi fii la lépp di leere borom seet bu leer bi Serigne Cheikh Sarr le guérisseur des maladies nee naa la hémorroïde ulcère prostate lépp ci gàncax ak ay reen cataracte glaucome ak bépp jàngoro bu nekk ci nit duñu bàyyi ndoxum siti bi sonal ñépp wóotal ci numéro bi gaaw ngir mu saafarawu 77 035 54 57 wala nga woote ci 77 736 76 21 Serigne Cheikh Sarr nekk fii ci diwaanu Daaru Cubb dama ki ko mën ak ki koy jéem du benn the king of the the king of the